Sénégal. On lu l'utile à l'agréable juste pour faire plaisir, des informations, des rubriques, des invités, accompagnés avec une très bonne sélection musicale. ñu dalal koo xamante ni namu nañ ko lool ci plateau bi euh, gëj nañ ko gis itam mooy muy oustaz Lamine Gueye comme tous les jeudis dañuy ànd ak moom dans la rubrique religion oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar am nañu mbégte lool retrouver la tey ci matinal bi. waaw Aïcha Diaby Camara maa ngi lay maa leen raw man it euh, namoon naa leen trop xëy na xew-xewu jamono yi rek moo waral euh, gëjee gise bi waaye xol yi mi ngi gisee ala kulli xaal waaye di nuyu ni ma bokkal euh, plateau bi Kajoor Pape Malick kay la star waaye di nuyu mbooleem téléspectateurs yi ñu seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rek di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah imaam dalal ak jàmm ñu dalal Keyna itam ci plateau bi ñu ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay <laughs> yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah bàyyi topp kaa. billaay ay ñu bàyyi lu nga nuyoog mbokk yi. <laughs> ba fajar bi dama koy topp léegi Alassane tey yow rek laay nuyu laay topp donc mi ngi noonu nuyu ñi ma bokkal plateau bi mi nuyu également téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñu seetaan di bàyyi lépp seen yitte li garaaw Aïcha mooy démb damaa foogoon ne mardi la. ma mm. indi astuce alors que dama waroon a indi góorgóorlu mais tey kon que je dis euh, damay daal di jaawale jour yi rek. indi la tey góorgóorlu voilà. ayca dinañ ñëw ci kanam waxtaanee corps de métier bi nga xamante ni ñoom nga demoon seet métti mais en attendant ñu ànd ak oustaz Lamine ci ay waxtaanam oustaz tey itam bi lan la ak ci la la waxtaan. waaw arab yi dañu wax ne li kulli maqaamin maqaal euh, bërëb bu nekk rek ak jamono ju nekk rek am na lu ñu fa war a wax te fi ñu toll ñu ngi ci jamonoy euh, ak màkk euh, moo tax thème bi daal ñu tànn waxtaane ak màkk pour ñi nga xamante ne dañu bëgg a dem ñu am ci ñu am ci benn. une waaw. kon tey pèlerinage la waxtaan. incha allah ah, kon dafa am moment bu précis boo xamante ni ci moment boobu waxtu woowu lañ ko war a defee. waaw dafa am waxtu maanaam du fukki weer yi ak ñaar fu la fi neex rek nga jóg euh, aji dafa am dafa am waxtu boo xamante ne foofu lañ ci waxtu woowu rek lañ ko mën a defee boo ko defee si beneen waxtu bu génn temps boobu moom ajuloo. ban waxtu la ban période la. ok ñetti weer la ah ñetti weer la. diiru aj màkka ci lislaam ñetti weer la yàlla moo wax subhaanahu wa taala alxajju ashhurun maalumatun fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajji gis nga euh, shawwaal maanaam bu ñu bu ñu waree weeru korite ak weer wii ñu ne moom la ñuy wax zul qaada mooy diggu tabaski ak zul xijja mooy weeru tabaski ñetti weer yi mooy weeri pèlerinage gis nga bu ñu waree rek mu nga ñu ne tey la tey la ñuy mooy première bésu korité rek yow nga armalu dem aji am nga aj ci biir ci biir période bi nga ko defee mm. gis nga fi ñu toll ku ko def ni ci jamono ji ni am nga aj am nga aj bu ñu tabaskee ba noppi maanaam déedéet bu ñu tabaskee ba noppi moom jeex na <laughs> bu ñu tabaskee ba noppi na ma moo tax sax borom xam-xam yi dañuy wax ni déet bul wax ne ñetti weer danga naan ñaari weer la fukki fan ci weeru tabaski parce que ci fukkeelu fan bi xam nga ci la ñuy tabaski mhm. bu ñu xasee ba tabaski moom ko moom ak jeex na moom mais nag ci biir euh, maanaam weeru kori ak weeru diggu tabaski bi ñu nekk ak fukki fan yi njëkk ci tabaski fii lii mooy jamono ji nga xamante ne mhm. ci lañu war a demee euh, aji màkka kii na alors amoon naa euh, ay question lu ma la bëggoon poser dama gis yàggul dara ci réseaux sociaux yi Euh, ay daam yu demoon ba màkk di fa jaay drogue at euh, ay affaire yu nga xam ne yu doy waar hmm. yu ñu fa doon def donc loolu ñooñu lan mooy doon seen àtte parce que bërëb boobu bërëb bu sell la hmm. at bu nekkee da nga dem màjji màkk àjji ji yan comportement nga war a comporté woo en tant que yow mi nga xam ne da bëgg sa màkk euh, nangu hmm. at boo ñëwee ba am titre ajaa bi yan comportement nga war a comporté woo xam nga dem ba màkk bu ñuy dem màkk moom pour jàmm ji sunu boroom pour sellal pour defi ji ay santaaneem moo ñu tax a dem mais nag boo demee ba foofa bu fa def loo xamante ne lu yàlla tere la loolu bu fekkonte ne bàkkaar bu ñu la ci bindal dañ la ciy bindal bàkk benn bàkkaar ci meneen réew boo ñëwee ba ci bërëb bu sell boobu nga defe fa bàkkaar ba kon mën nga faa amee junni bàkkaar parce que maanaam ki nga xamante ne dafa njaaloo ca baar ba bokkut ak ki ñëw ba ci biir jàkka ji wala ci bi ci biir église bi mu njaaloo fa kooku yaakaar naa kooku mbàkkaaram moo gën a garaaw te yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ne fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil hajj sa jabar bi nga àndal ak sa jëkkër bi nga àndal sax ngeen aji màkk sax waru leen a waru leen a sëy déedéet déedéet du ngeen ànd feeg aj gi jeexul déedéet wala rafasa déet béejoo wala fusuqa déet affaire caay-caay wala jidaala werante si si si jaamu yàlla la bokk entre jëkkër ak jabar waaw mais dañ koy defee ci biir jàkka ja. non boo demee ci màkk. waaw xam nga jaamu yàlla lu julli uh-huh. julli di jaamu yàlla. Mm-hmm. ndax nit ki dafay dem jaamoo jeeg yàlla moom ci biir jàkka ja. pas compris ma question c'est-à-dire xam nga màkk dafa yaatu. bokkul ak Kaaba ga Kaaba ga peut moom foofu la nit ki di dem di ziyaare mais tey bu nekkee ziyaare nga ba ñëw ba dellu sa hôtel yow ak sa jëkkër bu la neexee vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ah. bu ngeen nekkee ci acc kenn ko ci nekk dafay dafay téye boppam dafay téye boppam abstinence à la Mecque dafay téye boppam ba aj gi jeex ci ah. euh, wala jidaala fil xaj même xuloo sax werante sax dagge nit ki saaga la nga fayu sax boo nekkee ci pèlerinage yàlla nee bul ko def rawatina nag dem nag boo foofa nag dafa def ay mbiri débauche ak di fa jaay ak yooyu kooku kooku demul Màkka kooku dafa dem defi tourisme wala mu dem defi lu ko neex. ak ah, business waaw mais comportement Aïcha. mais kooku ah, ah, ajul kooku ajul màkk comportement yi mooy mooy mooy référé wu ci li yàlla wax ak yonent bi salaay salaam. te mooy di di di di def labbayk allahumma lak maanaam di sàbbal lu bari. Mm-hmm. di julli di ñaan bu tawaaf jotee nga dem tawaaf bu dox diggante safa ak maroo joxe jotee nga dem def ko loo mën a saraxe nga saraxe ko sa ndànk. bii sànni bu sànni jamra jotee nga dem sànni ji jamra loolu lañ la loolu lañ la fa sant mais santuñu la fa leneen. boo ñibbisee non non jaay grande dame. Mm-hmm. képp koo gis muy ñibbi di jaay grande daam wala muy jaay affaire loolu. kooku bi muy dem màkk yàlla taxu ko woon dem gis nga dem màkk ba ñëw sax ñu naan la alaaji sax mais loolu du farata amu la de wala ñu naan la aja am na ñoo xam ne boo leen newoon allaaji ñu mer kooku xam nga kooku demuloon ngir yàlla kooku dafa demoon pour prestige wala dafa demoon pour ñu changer turam ñu ne alaaji la naa maanaam ñu koy xoole bët bi wala ki ajaratu la da ngaa mës a dégg alaaji Mouhamed alaaji alaaji Ababacar Saddiq nag alaaji Aïcha nag mës nga ko alaaji ummu salamat ajaratu ummu salamata mos nga ko dégg pourtant ñoom ñëpp aj nañu màkka hmm. jamono ji nga nekkee ci aj gi jamono jooj nga nekk xaaj le pèlerin boo ñibbee tu n'es un pèlerin dëpp dellu nga sa dëkk alxaaj mooy le pèlerin ku jigéen ki mooy alxaaja jeex na ñaari peut-être hmm, léegi la si sama xel ñëw damay dégg aj ak umra am na koo xam ne juste après Korité hmm. dafa dem mu ñëw mu ne ma dama demoon umra te yaa ngi wax ne juste après Korité ku dem am nga am nga am nga aj léegi moom li mu def loon aj la wala umra la léegi ñaari question ñaareelu question bi hmm. mooy euh, comme par exemple man ma am sama waajur mhm. ma bëggoon ko yóbbu mag mu fekk jamono ji euh, moom peut-être yaramam sutante permettre ko mu mu est-ce que mën naa yóbbante aj bi maanaam keneen aj à sa place hmm. pour que moom aj bi quand même mu mu mu mel ni moom alhamdulilah dégg naa bu baax question bi euh, aj ak umra am na différence am na différence donte am na yu ñu nuróole nag mm. umra nit ki boo ñëwee ba yegg si fi nga xamante ne fa nga war a summee parce que bu góor dafay summi lépp loo xamante ne dafa dañ dañ ko ñaw góor daf koy dindi taraxlaayu mais jigéen moom am na sañ-sañ mu sol mu sol lu ñaw boo ñëwee ba armalu mm-hmm. loolu la ñuy wax armal Euh, direction boo jógee nag boo yegg see màkk bu nañ la ne bu fekkee est nga jóge fii fii mooy fii nga war a armalo bu fekkee sud nga jóge fii nga war a armalo loolu ak loolu ñu ngeen di àndal dinañ kenn ko ci nekk dinañ la ko wax boo xasee ba armalu bu dee umra moo la tax a jóg boo ñëwee rek taxawal maqaamu ibrahima julli fa ñaari rakaa hmm? mooy fi maam ibrahima taxawoon bi mu bi muy tabax euh, bi muy tabax euh, kaaba gi uh-huh. boo defee loolu ba noppi wër kaaba gi juróom-ñaari yoon ah? boo waree Kaaba gi juróom-ñaari yoon daw diggante Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon umra umra bi jeex na. bu dee aj nag umra bi jeex na bu dee aj nag loolu daf ciy dolleeku sànni jamra am na foo xamante ne da ngay dem sànni ji ay jamra ah mooy fi seytaane doon waxee Ibrahima bul rendi bul rendi xale bi xeer yooyu lool xool xeer yooyu loolu lay wund eh, am na aussi lu ñuy wax maanaam dem taxaw Arafa. arafa taxawaayu arafa muy une journée entière boo xamante ne foofu ngeen koy euh, defee ji mhm. am na lu ñuy wax tawaaful ifaada mooy euh, tawaaf gi nga xamante ne pèlerin yëpp ñooy jógandoo tey moom képp ku aj si màkka ñoom ñëpp ñooy defandoo tawaaf boobu loolu yooyu yëpp amul ci amul ci ci ci ci omra omra boo ñëwee julli nga sa ñaari rakka ci maqaamu Ibrahima mooy li ngay nuyoo li ngay nuyoo jàkk ji wër kaaba juróom-ñaari yoon daw Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon jeex na sa umra jeex na sa ah. ñaareelu question euh, ndax nit mën na ajali nit màkka effectivement effectivement yonent bi sallallahu alayhi wa sallama euh, am na bés muy muy muy muy tawaaf kaaba gi dégg koy wax naan labbayka an suburuma labbayka an suburuma labbayka an suburuma maanaam yàlla wuyu si naa la au oh nom de subruma yonent bi xam ne kon kii ñëwalul boppam yonent bi salaay salaam subruma la ñëwal yonent bi daal di ko jegeñ <laughs> yonent bi Aïcha subruma ah, effectivement subruma la ñëwal yonent bi daal di ko jege ne ko ahajjayta anta yow mii naan da nga ñëw à la place de subruma est-ce que yow def nga sa aju farata est-ce que yow déjà allah ji nga maanaam aj nga benn yoon xaala laa mu ne ko déedéet mu ne ko déedéet xaala xuj an nafsika suma xuj ah kon nag na nga changé euh, version bi ren ajalal sa bopp d'abord bu déwénee wala bu beneen yoonee nga ñëw ajal si burma loolu lan nga ci déggee mooy mën nga ajal si nit ki mais balaa ngay mën a ajal si nit ki dafay fekk yow ci su jëmi bopp nga aj ba pare balaa ngay laax jaay da ngay laax lekk ba pare. ku ñu ku ñu mën a yóbbante question avec Pape man <laughs> <laughs> kon réponse bu bizarre laa lay. waaw ah, peut <laughs> su fekkee nit par exemple. Hmm. Euh, boo xamante ne da ngaa sàcc xaalis. Hmm. jël xaalis bi dem aj maaka hmm. dem ñaan ay ñaan affaire yooyu noonu ba am xaalis hmm. aj nga ba pare après ñu nga ñëwaat nga fay ko loolu c'est di nga am aj déjà am ajuloo <clears throat> xaalisu xaalis euh, euh, aj inna allaha tayyib laa yaqbalu illa tayyib yàlla nee na man ku propre la du ma accepter lu dul lu propre alalu sàcc propre la boo lebee nag ala mën nga ko waa loolu moom mën nga ko mën nga ko ajee ji mais boo bu fekkee da nga leb nga dem aj nga ñëw mais fayoo ko. léegi nag kooku am nga boru am nga am nga bàkkaaru bàkkaaru ñàkk fay bor. mais nag sa aj wér na. bu fekkee Aïcha daf ma Aïcha Diaby daf ma lebal xaalis ma dem aj ci màkka aj bi aj bi wér na. même boo amee intention sax doo fay bor. déet waxuma nga wax déedéet. Ah, boo amee intention déedéet waxuma nga waxuma ne boo amee intention kay ne doo ma ko fay kay kooku. dafa sax waaye waxoo ko ko mais yow ci xam nga ne yow. wax dëgg waa mais kooku sàcc la. kooku sàcc kooku dafa sàcc. kooku lebul dafa sàcc kii leb dafa am intention ne fas yéene wu maa fay kooku lebul daa sàcc. c'est kooku lebul dafa sàcc yonent bi salaay salaam nee na am na ñoo xamante ne bu ñu nee labbayk allahumma laka labbayk labbayk yàlla wuy naa la yàlla wuy naa la yàlla yebal malaayika yi ñu naan ko laa labbayka wala saadayka lakka zaaduka xaraamun wa rahilatuka xaraamun yàlla nee na wuy si wuloo ko yi nee na nee na dalalu la te sa aj baaxul lan moo tax parce que sa billet bi nga ñëwee baaxul sa argent de poste bi nga yor baaxul mhm. léegi euh, on va mm. nga wax sax moo tax sama xel dem ci parce que li ñu koy dégg bari na labbayk allahumma labbayk hmm. innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika la la lay signifier labbayk allahumma laka labbayk labbayk mooy wuyu si naa la je suis venu répondre à à appel parce que yàlla moo waxoon Ibrahima ne ko wa azin fi dansi bil hajj wool ma nit ñi ñu ñëw wuy si ma fii hmm. bi mu tabaxee camp rek ba mu ne ko yéegal ci kaw jabalu nuur moom la ñuy wax jabalu abi xubay si ne ko jublul ci Euh, est ouest nord sud nga woo nit ñi mu ne ko fii bu ma fi wootee kan ko muy dégg fii désert rek la mu ne ko wooteel ñuy war a wuy si man maa koy décider. Mm-hmm. maa koy décider alors euh, kon donc ku dem rek woote yàlla bi nga wuy si. Mm-hmm. nga ñëw nag ne ko labbayka yàlla wuyu si naa la allahumma yow yàlla laka labbayka yow dong laa wuy si. Mm-hmm. inna alhamda sant wa ni'mata ak xéewal. Euh, lakawal lakka yow rek yaa ko moom. wal mulku nguurit mm-hmm. yow rek yaa ko moom yow yàlla labbayk allahumma laka labbayk labbayk laa sharika laka amul kenn ku ñuy bokkaale ak yàlla mm-hmm. ci lu wér maanaam da amuloo amul amul amuloo ak bokkaale eh, nga ne kon kon automit kii naa kii naa rapidement tudd nguur ma ne kon nguur nag nit dina dem ba màkka di nguuru di kennal buurub yàlla mm-hmm. nguur yàlla rek moo ko moom keneen ku dul yàlla sa nguur gi daf la ko abal te bés a ngi ñëw dana ko nangu. alors imam euh, phrase boobu nga xam ne moom la ñuy wax bu ñuy wëy bu ñuy wër euh, kii bi mooy Aïcha li mu li mu wax léegi la voilà boobu noonu tey bu nekkee mënoo ko wax ci euh, ci arabe bi tey bu nekkee da nga koy wax ci olof est-ce que wala langue bi nga dégg est-ce que tey suñu borom dina ko accepter ak beneen chose bi nga xam ne mooy sandi jamra sandi jamra boobu noonu dégg naa nga ne seytaan bi nga xamee ne dañu war a rendi euh, euh, Ismaël dafa daf ko daf ko ne noonu bu ko rendi mm. donc tey bu nekkee da ngay sàndi jamra kan ngay sàndi seytaan yi ngay sàndi jamra wala waaw lu symbolique la ah ok lu symbolique lan si jublu ci xam nga xam nga euh, yàlla bi mu waxee Ibrahima ne ko rendil Ismaïla yàlla dafa seytaane dafa dab Ibrahima ne ko sa bopp dafa toj fi ñu toll xale bii sa doom ji nga xamante ne da nga ko yéex am nga bëgg ni mu jël juróom-ñaari sànni ko ko ah loolu la ñuy wax jamratul ula moom mooy mooy jamra bi ngay njëkk a sànni xam nga ñetti jamra mu dem ba ci yàgg mu dab euh, mu dab euh, doom ji ne ko sa foog fekkul ci sa loxol papa mm. parce que sa papa fi ñu toll dafa laa nar a rey ci ay caaxaan mu jël juróom-ñaari xeer sànni ko ko loolu mooy al jamratul busta mu dem ba ci ak mu dab yaay ji ne ko kii bopp bi toj na dafa mu jël juróom-ñaari xeer sànni ko ko moo mooy jamratul aqabati mooy juróom-ñaari place yooyu nga xamante ne fu ci nekk di nga fa taxaw sànni ay xeer luy symbolique la luy wa luy rek luy wane ne maanaam man it maa ngi sànni seytaane xeer bi boo ko mënta wax ci boo ko mënta wax ci li gën nag bu fekkente ne parce que am na ay mu tawif mhm. am na ay réew yëpp léegi dañuy ànd ak ay mutawif ñoo xamante ne dañu naan labbayk allahumma laka labbayk loolu xanaa di nga ci mën a topp nag. kon de ñu dem rek yal nañu sànni téeméeri <laughs> que mënuloo ko wax. ci ol ci araab mënuloo ko ba mënuloo ko yàlla dégg na njaago mhm. dégg na mankaañ mhm. dégg na joola dégg na saraxule nga nga làkk ko ci nga wax ko nga ne ci nga wax ci làkk bi nga dégg yàlla wuyusi naa la yàlla wuyu si naa la amul kenn ku ñu amul amul benn buur bu dut yow kenn waru laa bokkaale ko ci wolof sunu sëriñ su may sunu sëriñ El Hadji Omar Sy na dafa am benn lébu bu doon aji ne nee na di wër kaaba gi naan yàlla may ma baraag ak gaal yàlla may ma baraag ak gaal xam nga booba jamono ci Medina boo amee baraag mu ngi mel ni ku dëkk ci zone yu kii yi nii waa Euh, boo amee gaal xam nga li bu am gaal. moom moom moom moom moom bos nee na euh, benn waay jege ko ne ko boole ci ak àjjana. Ah? boole ci ak àjjana. man mosuma dem. li may wax am ñaanal leen leen ma ko bë mooy li ma gën a bëgg nag ci sama àdduna. léegi rek incha allah ñaanal leen ma ko mu dem amiin yaa rabbal balaa déwén incha allah yàlla nga dem waaye man it balaa déwén incha allah yàlla naa yóbbu sama yaay. maykatu billet maykatu billet da billet. billet yi nga xam ne ci lu sell. indil may leen ñu benn billet boobu. ñu koy ñaan ay waay amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin amiin bëgg naa ko de. ko ko def yàlla na ko yàlla de Euh, bon bu ñu paree léegi dinaa sama wàll sama wàll def ko ci sama wàll ci ci loolu <laughs> alors bu ngoog jërëjëf oustaz jaajëfal nañ la bu baax a baax mais je pense que war nañ ci ñëwaat comme dañ toll ci période bi surtout li nga xamante ni moo di taxawaayu Arafat dañu naan bés boobu baax na nit di ko woor ya am donc bu ñu ñëwaatee semaine prochaine incha allah faaw ñu taxaw fii ba aj ga incha allah ci aj rek la ñuy wax jërëjëf euh, on termine ak léegi léegi rek ñu dikkaat